asalaamualeykum sénégalais sénégalaises surga bu dul bay du suur jarul ba sa kër déglooti leen bay jagal mu woy te raa ni réew mi kañ ko jox ko njukkal administration bi jar na boole raxas fab ko laxas def ci mbuus te tuur ko mbëbës noon buy nëbbuy wor ba weeru jër te mu ñël bul ko bàyyi mu am doole jër te yafal mboolem directeur yi sañse leen dafa war soppi sa ambassadeur yi ndaw yu ñu yar ndomb ak tànk doo ko jox sa noon ami ndam woolu ko lay wor ba weeru doy na ngëlëm looy bëgg a wax nanga ko xool ba xam ca lu wér looy bëgg a def nang ca seet sa diine sa ngor jëwriñ ku koy tànn nang ko xool ba mu doy ci xam-xam ak man-manam jikkoom yana xay nit dana wax luy defar te yàq ko ñor am ku wax lu yàq tey ku yéene defar jiite laaj na xam sa aada baax ya ñu naw te suñ cosaan diine ngor la ak jëfu yiw surga bu dul suur du dem ca waar wa ba bay boo ko fi baatool yi booy te doo ay ab bay jagal daggi jumtukaay yi la man ak soññi jàmbaar ya aw ca yoonu la gën talaata ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin 2024 Touba Darou Khoudoss Ahmadou Diongue Baye Diagal baal leen ma ak jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati